sayyidina muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi al-ghurri al-mayamin wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin laqin lisani wahlulan minhu luqan waj'alhu shakiran wa zakiran abad waj'al kalami rashidan wa murshida wa fikrati nawwir wa qalbi arshida mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa ñoo ngi leen di nuyu nuyu lislaam bu tedd boobu di fees dell ak jàmm ak yërmaande ak barke bu tukkee ci suñu boroom yal na wàcc ci seen kaw ñu leen di jaajëfal bu baax ci ànd gi ngeen di ànd ak jataay bi waaye di jéggulu ci bépp njuumte boo xam ne rekk rot na ci Euh, njàngale mi te tukkee ci ñun ñu xeebu ñi nga xam ne ñoo koy taxawal mu mel ni suñu bind bi weesu ñu ngi taxawoon ci fi sëriñ bi euh, doon wax ne nangay yaatal nit ñi tey sopp sopp jëm ci nit ñi ngir ne sopp sopp moom mooy euh, xaajub am xel mu ne sopp sopp jëm ci nit ñi nag Euh, nee na loolu bokk na ci jikko yi ñi nga xam ne dañoo ñaw maanaam bokk na ci jikko yi nga xam ne ku ñaw rek moo koy def ngir ne nit ki su ko defee loolu nit ñi dañ ko koy delloo su ko defee mu euh, am jàmm du am benn jafe-jafe ci jëflante goo xam ne daf koy jëflante ak nit ñi suñu bindub tey nag fii lay tàmbalee fii sëriñ bi ne wazur na siyaare ji xiyaaral ulamaa tànnee fi boroom xam-xam yi wa saalixiin ak gaañu baax ñi wax dimhum te nga liggéeyal leen lillaahi ñeel yàlla jàlla màgg na kulla xiin jépp bi radiallahu dafa wax na nga siyaare ji tànnee fi borom xam-xam yi tànnee fi ci boroom xam-xam yi na leen di ji tànnee fi ci borom xam yi mooy ñi nga xam ne dañoo am xam-xam ba pare boole ci ak sellal waaye boole ci ak ragal yàlla waaye di jëfe seen xam-xam te yàlla rek tax sëriñ bi nee na ñooñu de nanga leen di siyaare ji foo toll ak ñan ñi nga xam ne ñooy gaañu baax ñi ñi nga xam ne. Euh, seen lépp dañ koo jël jébbal ko seen boroom euh, ñooñu nga xam ne lépp lu ñuy def euh, dañ koy def te ak sellal rek moo tax ñu koy def dañ koy def te jëmmi yàlla rek tax sëriñ bi nee na na ngay ziyaare ji ñooñu tamit na leen di ziyaare ji kon del ziyaare ji boroom xam-xam yi nga xam ne Euh, dañoo am xam ba pare te sellal ko waaye del ziyaare ji ñi nga xam ne euh, dañoo baax dara ñoru leen lu dul jëmmi suñu borom bi subhaanahu wa taala ne it na leen di liggéeyal te yàlla rek tax jëpp jamono saa boo xamee ne am nañu liggéey wala lépp loo xam ne dañ koy sàkku te nga man ko nanga leen ko liggéeyal te yàlla rek tax mu ne watlub na nga sàkku duaahum seenu ñaan wa minhum tukkee ci ñoom abad ba faw kun nanga nekk zaata barrukin boroomuk barkellu fatas daada kon ngay dolli ko alhuda ak njub sëriñ bi nee na na ngay sàkku seenuk ñaan ñoom boroom xam-xam yooyu ak gaañu baax ñooñu na ngay sàkku seenuk ñaan te ngay barkeellu ci ñoom foo toll ndax loolu daf lay dolli ak njub waaye daf lay dolli ak ragal yàlla waaye daf lay dolli taw tawféex bu baax a baax a baax kon na ngay sàkku seenum ñaan ñoom ñoo ñu nga xam ne ñooy tànnee fi borom xam-xam yi waaye gaa yu baax yooyu nga xam ne suñu borom bi subhaanahu wa taala rek moo leen ñor tamit na ngay sàkku seenub ñaan kon bul xeeb ñaanu kenn ci borom xam waaye bul xeeb ñaanu kenn ci waaju baax yoo xam ne. Euh, suñu borom bi subhanahu wa taala rek moo ko ñor te it ngay barkeelu ci ñoom ndax dañuy wax ne albarakatu lil mutabarrikin barke ñeel na ku barkeelu maanaam soo gisee mbir moo xam ne boo ca barkeeloo mën ngaa am ca barke ba bul ko xeem na nga ca barkeelu te borom xam-xam yooyu mën nañuy barkeelu ci ñoom waaye gaañu baax mën nañoo barkeelu ci ñoom mu ne fa innama ijlaalu aalimin amil ijlaalu rabbil arsi fii ma xad nuqil nee na màggal boroom xam-xam boo xam ne dafa xam ba pare di jëfe xam-xam day mi ngi mel ni màggal jëmmi yàlla ji subhaanahu wa taala ci li nga xam ne solo nañu ko kon nee na boroom xam-xam boo xam ne dafa am xam-xam ba pare di ko jëfe am xam-xam ba pare boole ci ak yàlla nee na kooku de saa boo ko màggalee na nga jàpp ne jëmmi yàlla jëmmi borom bi subhaanahu wa taala moom nga màggal kon màggal borom xam-xam boo xam ne dafa jëfe xam-xamam boole kooku ragal yàlla boole kooku sellal saa bu ko nit ki dee def na xam ne mi ngi màggal suñu borom bi subhaanahu wa taala ndax loolu tawféex rek la koy jural waaye ngërëmal suñu borom bi subhaanahu wa taala rek la koy e, jural kon nit ki su fekkee ne gis na boroom xam-xam boo xam ne dafa am xam-xam ba pare di ko jëfe na ko fonk lool waaye na koy màggal ngir màggal gi koy màggal ci lay màggale jëmmi suñu borom bi subhanahu wa taala mu ne wax xay suma saa xabta foofi àndaale saxsan waaye ak bara doj dana gën a mage min ka ci yow fala tazal bul deñ mu waqira di aji weg loxoo ñeel ko fii safarin moo xam ci ab tukki la aw xayrihi wala ci leneen lu ab tukki fa aasira nang ko ëffal bi majlisin ca jataay ba wa saabiraate na nga muñ bi firaasin ca lal ba ne na saa boo fi àndeek waaye day koo xam ne moo la gën a féete ak mag ngeen ànd ne na bul deñ mukk di ko wekk bul deñ mukk di ko eh, eh, jox ab cër bul deñ mukk di ko wormaal ànd ga ngeen ànd nag moo xam da ngeen a ànd di tukki wala da ngeen a ànd di dox yeneen yitte yoo xam ne euh, tukki taxu ne na bu boobaa na ko wekte na ko respecté na nga ko jox cër waaye na nga ko wormaal su ngeen demee ba war a am ci jataay boo xam ne dangeen ngeen caa war a toog sax ne na bu boobaa na nga ko euh, yaatalal fa nga xam ne fa lañ leen xàllal ngir ngir ngeen toog fa waaye nang ko bàyyee ak lal ba bu dee ab lal lañ leen jox bu dee ab chaise lañ leen jox na nga ko bàyyee ak chaise ba te toog ci suuf waaye bul bul ko bul xëccoog moom mukk euh, la nga xam ne mooy tooguwaay ya nga xam ne moom lañ leen jox ngir xëccoog moom tooguwaay yooyee loolu bokkut ci ay teggin te it bokkut ci warmal mag bokkut ci euh, respecté mag moo tax mu ne wajlis na nga toog alal ardi ca suuf sax wala takunte bul nekk maahu ànd ak moom alal firaashi ca kaw lal ba indaa ndeem woona la li taw sian ngir ak yaatal illa li dararin lu dul lor jaa fu fi dikkee a taamu ñam wa ilaykum ha ci ñaar awi sharaabu naan nga yaa gulaam ah, xale bi fala takun bul nekk saabiqahu di aji jiitu ko lahoo ñeel ko abadan ba faw bal li fi ne kay intasir na nga xaar amrahu ndigalam fiihi ca loole jaaka mooy nekk arusda euh, njub ga ne na saa boo xamee ne ànd nga moom nag buñ leen joxee euh, ab tooguwaay nanga toog ca suuf yow nga bàyyi ko te yaatalal ko kaw lal ba moom mu toog ca kaw su fekkee ne nag dala woo ngir yaatal ne na bul toog ca kaw mukk bul dem toog ak toogandoog moom ca kaw mukk euh, ngir Euh, li feek ak lor amul maanaam li feek loru amul nga xam ne tey da demoon ci kër goo xam ne da ngaa ànd ak koo xam ne ñoom lay seen aada lépp ñoom ñëpp mooy ñu toog ci ay ay ay ay chaise tiim ab euh, taabul di lekk bu boobaa amu ca pexey man ngeen a toogandoo ca kaw bu fekkee ne da ngeen a ñëw ci kër goo xam ne euh, kër gépp dañ ko meublé ay fauteuil nga xam ne mënoo ñàkk a moom ci kaw bu boobaa tamit loolu lor lañ koy jàppee waaye nag nee na li feeg lor amut bul bokk ak moom mukk toog ci kaw euh, na ngay toog ci suuf euh, saa bu ngeen àndee nga bàyyi ko mu toog ci kaw donte ne dalaa ngir di la yaatal sax yow bul nungoot bokk ak moom jataayu kaw ba waaye fexeyal euh, di ko féete suuf di toroxlu ci kanamam saa boo xamee ne nag andil nañ leen aw ñam wala luy nuru ak naan nee na bul ko jiitu mukk ca lekk googa wala naan ga na nga xaar ba mu jox la ndigal saa bu la joxee ndigal nga doog caa mën a jëfandiku waaye bu la joxul ndigal na nga xaar ba mu jox la ndigal ndax loolee mooy la nga xam ne ca ngay amee tawféex loolu moo di ak njub loolu moo di respect waaye loolu moo di wormaal mag loolu moo di wekk mag kon bu ngeen demee luñ leen jox ci aw ñam Euh, feeg joxu digal ndigal yow bu ca euh, jiima euh, jëf jëfandiku bu ca jiima def dara bu ngeen sukkee ci ndab tamit buy booy bu ngeen di lekk bul jiima dem ca digg ndab la mukk li moom joxu la nga dem ca digg ndab la nee wakkun na nekk wakkun na nga nekk mu sirahu di aji ëfal ko da ban ba faww lil ngir warmaal bi jayyidin ca la gën a baax mi mina taami ce ñam wa nee saa boo xamee ne euh, tegal nañ leen ndab li lépp loo xam ne moo gën a baax ci ndab li nee na euh, mag moomu nga àndal na ko jël di ko dagg di ko tegal euh, ngir lan ngir warmaal goo xam ne warmaal nga ko waaye ngir kilifteef goo xam ne sedd nga ko kon bu ngeen sukkee ci bool bi bul di dagg mukk la gën a baax ci ñam wi di ko lekk waaye na ngay fexey ba di ko daggal la gën a baax ci ñam wi di ko euh, ko tegal wax dimhu na nga ko liggéeyal fii jamii ma ca mbooleem la nga xam ne yaxtaaju dana ko soxlawoo ilayhi jëm ca moom da kon ñu fajal la lakka ñeel la alxaaju aajeyo baadu ca ginnaaw loola nee na euh, saa boo xamee ne dafa am yitte joo xam ne dañ dañ ko ko war a liggéeyal te man yitte jooja nee na na nga jug fajal ko yitte jooja ca saase waaye bul xaar dara na nga ko defee na nga xam ne noonu la ko bëggee euh, ba euh, mu am ca ngërëmam ndax nee na loolu kat ci la sa aajo di fajoo kon boo àndee ak mag fexeyal ba saa bu soxlaa ci yow loo koy liggéeyal wala loo xam ne moom aajo jum soxla ngir nga war ko koo fajal te nga man ko nga fexe fajal ko ko ca euh, bu gaaw ngir ne loole ca ngay amee ngërëm waaye ca ngay amee fajuk aajo mu ne wa xaysuma saaxabta foo fi àndaalee xawman aw nit safar ci ab tukki fa kun na nekk muinahum di aji dimbali seen ala kulli watar ci bépp aajo wax dimhum te leen di liggéeyal wara te ngay sàmm rawaaxilahum seeni bagaas wala seeni waruwaay wa xaadin te ngay bokk amtiatahum seeni bagaas baadahum ginnaaw loole nee na saa boo fi àndee ak aw nit di tukki day na leen di dimbali ci lépp loo xam ne seen aajo la lépp loo xam ne mën nga leen koo dimbalee te yàlla tax na nga leen koy dimbalee waaye lépp loo xam ne mën nga leen koo fajal te muy seen aajo euh, nga fajal leen ko te yàlla rek tax nga dimbali leen liggéeyal leen sàmmal leen seeni waruwaay waaye fexey seeni bagage nga jël ko Euh, yoral leen ko téyel leen ko su fekkee ne yow yaa leen ëpp kàttan yaa leen euh, gën a mën a euh, yanu méttiwaayu méttiwaayu ab tukki coono yi nekk ab tukki ab tukki yëpp yaa leen ko gën a àttan bu boobaa na nga leen dimbali ci kem loo xam ne man nga ko waaye na nga leen di sàmmal seeni waruwaay su fekkee dañoo yori waruwaay su fekkee dañoo yori bagage na nga leen sàmmal bagage ya bu fekkee dañoo Euh, mënta attan bagage ba yenu ko la nga ca man ci sa kàttan na koy def ngir dimbalee leen ko te yàlla rek tax mu ne wamsur na nga dimbali jamiohum boole seen bi maa ca la nga xam ni istataata man nga ko waxtasir te nga doggant lahum ñeel leen isaaka faltaandeem sàggan nga ne na lépp loo xam ne man nga ko daal ci dimbali leen ñoom ñoo ñu nga àndal di tukki nena na nanga ko def waaye lépp loo xam ne nag mënu ko nanga leen dogal ngant ci ne lii kat dama ko mënut waaye am naa ci yéen bu baax bëgg naa ko kon lépp loo leen mën a dimbalee ci lu baax defal leen ko lépp loo xam ne sa kàttan attan na ko nga mën leen koo dimbalee ngir fajal leen ci seen aajo na nga leen ko dimbalee loo leen mën a yoral ci ay bagage nanga nga leen dimbali yoral leen ko waaye lépp loo leen mën a jàppalee ci tukki ba ba gën a oyofal seeni coonoy tukki nanga leen ko defal ngir loolu Euh, payuk suñu borom bi subhanahu rek nga ciy am waaye ngërëmul euh, ñi nga xam ne ñoom nga àndal di tukki rek nga ciy am mu ne euh, mu ne falan yuusira du gënal maanaam du tànn sax sun jenn waay araada joj bëgg na an na mu nekk muusira di aji woomal daatan am nooflaay wala loxoy kese waraaxatan akum nooflaay nee na képp koo xam ne daal bëgg ngaa nekk koo xam ne nit ku woomal ngay doon nee na ñaar yi moom doo leen gënal mukk mooy foo toll yoor loxo maanaam yoor sa loxoy kese doo def dara wala nga bëgg am noflaay ba mu ëpp nee na ñaar yi képp koo xam ne saxoo na ko day na xam ne euh, lu muy sàkku ci wàllu koom wala leneen lu muy sàkku mën na ko bañ a gaaw am ndax ñaar yi dañuy gàllankoore bu baax a baax a baax moo tax mu ne falan sira du gënal wala du tànn sax sun jenn waay araada ju bëgg na an na mu nekk sira di aji woomal daxatan loxoy kese waraaxatan akum noflaay kon saa boo bëggee dara wala nga bëgg am koom wala dara kon la koy may mooy nga dem liggéeyi waaye bul euh, bëgg am noflay ndax am noflaay ak yor ay loxo kat wala tàll ay loxo di ñaan yooyu boo koy def euh, li soxla Euh, man na laa të man ngaa am soxla mu tëla waaye bu fekkee ne danga ngaa bëgg a woomal it na nga xam ne mën ngaa dund ba faatu te doo masa woomal ngir ñaar yooyu nga gënal dañoo gënut te mënuñoo jox nit lu ko doy ci àdduna moo tax mu ne is ngir min huma ci ñoom ñaar muy loxoy kese akum nooflaay lay say jiu déet muy dikk xayrun aw yiw bal li fi ne kay yaat yi dina dikk dina dikke al murida murid bi maanaam taalibe bi euh, dayrum lor min huma tukkee ci ñoom ñaar nee ñoom ñaar ñoo ñu la wax de muy loxoy kese akum noflaay nee na képp koo xam ne gënal nga ko na xam ne aw yiw de doo ko am muk waaye coona rek ak i lor rek lay dikkeel taalibe bi waaye euh, du ko andil am noflaay mukk ngir ñaar yooyu képp koo xam ne gënal nga ko Euh, li ngay soxla ci àdduna foo toll da nga koy ñaan wala euh, li ngay soxla doo ko masa am te ñaar yooyu benn baaxu ci kon nit ki wërta gënal loxoy kese maanaam yor ay loxoom fu mu toll ñu koy dundal wala mu gënal am nooflaay fu mu toll di bëgg am nooflaay bañ a jug di liggéey ngir euh, mën a tedd mën a teral ñi nga xam ne ñoo aju ci moom waaye ñaar yooyu saa bu ko nit ki gënalee muy loxoy kese ko nooflaay maanaam du ko dikkeel mukk aw yiw waaye du ko indil mukk aw yiw ay coona ak i lor moom lay indil murit bi ngir ne day tax saa bu soxlaa la muy def muy ab euh, solution maanaam la ko cay mën a génn rek mooy dem di ñaan wala dem di toroxlu ci kanam ay nit te yooyu benn baaxu ci kon nit ki war naa fexey fu mu toll di liggéey ngir euh, mën a tedd waaye di liggéey ngir mën a jaamu suñu borom bi subhaanahu wa taala kon ñu ala sahabati wa saadati kullihim ridwaanu rabbil aradi wa samawati assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu ala sahabati wa saadati kullihim رضوان رب الأراضي والسماوات sëriñ bi dañu sëkk tey ëllëg kon nag nañ ko fas yéene nañ ko fas yéene liggéey liggéey